Sénégal ziar Afrique ziar monde entier tey seen émission waxtaan ñu ngi koy amalee fii ci Thiès benn dëkk ñaari gaal ak Samagal TV Samagal TV nag boo gisee tey mu ñëw Thiès fii ci bergerie Ibra Degen Tanor dafa am benn maal bu ñu fa représenté boo ñu wax sedd na xol sedd na xol nag il faut ñu ñëw présenté leen ndax maal boo xam ne la Habib Diop da ko jënd ngir liggéey ci balaa ñoo def dara ñu ñëw fi nga xam ne mooy bergerie bi fekk fi éleveurs yi fi nekk ñu wax ñu dara tuuti ci maal bi ñu wax ci waxtaan bi. léegi asalaamaaleykum mbooloo mi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey nag ñoo ngi ñëw ci bergerie bi nga xam ni moom mooy bergerie Ibra Degen Tanor Ibra Degen Tanor nag bu ko déggee kooku nag am la ci Habib Diop mi taxaw di bàyyi njaw ma kodd ndax kër gi maanaam ak jur yàgg na fay yeewee xam bàyyam ala njaw ma kodd xam ni champion bu mag la woon moo yoroon fas course yooyu gagnant yooyu tàmbale ko ci faraxati njar njar ndéem ak euh, étoile filante ndey bunaama taysir ku lim da ngay juum mais tey nag ñoo ngi ñëw nag tey ci xar parce que jur googu ñu fi saxaloon fii ci kër gi moo waral mu dem ba doomam màgg tey bëgg xar ci bëgg xar gi mu bëgg xar nag mun taxaw ci nag tembe war cee yar bëgg cee def loo xam ni lu ci moromam deful wala loo xam ne ay moroomam def nañ ko ci mais daal day dabe def ci lu baax a baax a baax muy abib mii taxaw nii. am partenaire nag koo xam ni moom la ñuy wax amaat ca États-Unis muy nitam di léppam teg ko loxo gën koo bëgg xar lépp lu abi bëgg wala mu am ko yéene ci xar yi moom moom mu taxaw di ko jàppale ñu nag ñuy ay frère am yàgg moom ci gétt yi ñu bokk moom élevage bi bokk ak ñoom regroupement des éleveurs intensif de Thiès tey nag ñu ñëw fi doon présenté xar mii taxaw xar mii taxaw mii nag ñoo ngi ko tuddee sedd xol sedd na xol seet na xol ji boo ko gisee boo ko li ko waral moom mooy xaalim jën ci boppam nga xam ne ñu naan ko xaalim géy di sunu di sama sët man nga xam ne éleveur bu mag la moom moomoon Papi Jéy moomoon Daaru Salaam yor bergerie Daaru Salaam ci ay doywaay ba pare taxaat dañ ci soxla masturation ak ak ay ak ay critères yu wóor a wóor léegi bi ñu demee ba xool ba analyser presque mal bu ne jaar na fi deret bu ne jaar na fi deretu Tyson jaar na fi deretu deretu deretu Boy Séeréer jaar na fi deret yëpp jaar na fi mais bi ñu xoolee ba analyser ba analyser xam ni record bi gën a garaaw ci xar yi. maanaam euh, mi ngi bàyyi ko ci Cheikh Diop Cheikh Diop nag maal la boo xam ni ne dumb yaa ca dakaar moom moo ko juddul woon muy jigéen ju jàmbaar liggéey ci ba xar mi teral ko ci yóbbu ko ci màkk Cheikh Diop moomu nag moom moo jur magistrat magistrat nekk ci loxoy abukan mu jur fa doom muy le grand Sidaat Diop mi nga xam ni moom tamit Ceesuwaa la bëgg élevage bëgg ci di ci xar tànk tubayam bàyyi ko fi dem ba dakaar dem. maanaam déclenché foofu jënd xar moom muy le grand tey le grand moomu tey moo jur xar mii ñuy wax sedd na xol muy deret yoo xam ne deret yu wóor ju assuré li nu boole nag ak xar ci laa bëgg ñëw tey xar yàlla daf ñu koo terale ci anam yu ne maanaam tudd ko ci arxuraan ndax parce que ñun bi ñu juddoo yàlla def ñu dem ba nekk ay nit yàlla def ñu de ay doomu aadama def ci ñun ngëm muy yonent yàlla Ibrahim dafa tëdd ba gudd yàlla ni ko yow Ibrahima mu ne ah mu ne ko sa doom ji nga da ma ñaanoon juróom fukki doom man la dinaa la may juróom-ñeent mais fukkeel ba dañ koy tër da koy rendi sagale ma ko. fukkeel ba ba mu juddoo di Ismaïla muy doomam ji nga xam ne moom la gën a bëgg ci doomam te booba yàlla programme na ci Ismaïla ni day nekk yonent mais nag comme natt la bu dal ci kawam mu xaw a di diital yàlla bàyyi ba guddi yàlla ni ko nag Ismaïla mu ne ah mu mu ne ko ah, mu ne ko sa doom jooju ma la waxoon Ismaïla danga koy rey mu waxtaan teg soxnaam waxtaan teg Ismaïla Ismaïla ni ko papa yàlla moo ñu moom moo ñu bind moo ñu sàkk lépp lu mu dogal ci suñu kaw da koy nungu ñu jël Ismaïla yóbbu ko ca fan ko waroon a rendee ban ko demee ba war koo rendi ci la yàlla fëgg Jibril alayhi salaatu wa salaam ni ko demal ci àjjana nga jël fa xar ma fa gën a baax xarum xaaf ma fa gën a baax kuyu xaaf ba te booba ban ko xoolee laadum la mu jël xar ma fa gën a baax andi ko daal koy doxale ci diggante paaka ba ak baatu Ismaïla ron ko ci suuf ñu rendi xar mi banu rené rendee xar mi Ismaïla daal sant yàlla ci ginaaw ni alhamdullilah rabbil alamin bàyyam tourné gis ni mom reyul dom xar la ray ibrahim mom tamit sant Jibril tamit sant ndax mission accompli xar mi tamit sant ndax day delluwaat aljana yàlla wàcce ay ni khafa maqama rabbi wa na nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal mahwa jannatu mahwa joju tay fi mu ne dema moo dem ci aduna ba sunu borom tay may kattan Serigne Saliou Mbacke doomi Serigne Touba mu jël ab dëkk bu rëy rëy rëy tudde ko janatu maxwaa jooj ni bu ëllëgee yomal xam képp ku fay yeewoo sa puju néeg mooy sa seede ci àjj àjjana loolu daal mooy li nga xam ne moom la ñëwoon fii ci bergerie Ibra Degen Tanor doon leen ñëw doon leen présenté mal bi femelle yaa ngi ci biir nag femelle yi nag nekk ci biir tamit bari nañ fi dajale ndax élevage bu fekkee yow da bëgg a def yooyu élevation de race maanaam xar yi da ngay dem nga génne ay sang yu baree baree bari lu ko demee nii ay da ngay dem indi sa sang Tyson yu bare ngi fi ci biir kër gi ñu war leen a boole nag ak deretu le grand bii le grand nag boo ko déggee dan naan mën noo koo dégg te waxoo magistrat magistrat ku ko wax di nga wax Cheikh Diop kon nga xam ne ñooñu giirug champion la koo xam ne ni tey moo ñu andi woon fii ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp nag di wax ni tey fi mu nii fi mu nii dañuy doog a démarrer dafa gun benn production parce que xar yi liggéeyagunu dara loo xam ne nit ñi tey mën a seet mais am nañ yaakaar ni bis bu defee bu bu bu tëbee xar yi bis bu waddalee doomam bu boobaa dinañ gën a wax alhamdulilahi rabil alamin de passage nag fal cat te dolli ko sutura gën ko boole ak xaritam boobu nga xam ne mooy amaat parce que tamit élevage day laaj day soxla nga am bailleur de fonds boo amee ku la teg loxo ak sa xam-xam lépp lu mu ci bëgg di nga ko ci mën a sotti ci kaw mu njortu yu rafet a rafet a rafet di sant ñëpp mënuñoo wax nag bay yeggal te nuy nuyuwu nag quelques éleveurs fii ci Thiès waaw particulièrement suñu président muy Pape Diallo ak ñi nga xam ne équipe bi mu àndal di liggéeyandool ci REIT REIT nag boo ko déggee moom mooy regroupement des éleveurs intensifs de Thiès muy trésorier bi ñoom Amadou Ndiaye ak ñoom ñëpp di nuyu éleveurs yi Xaalim Fall Olam di nuyu Sidal Diop di nuyu ñëpp ku lim da ngay juum tous les éleveurs ñoom ngañ jàlloo gars yi yëpp parce que gars yi yamuñu rek ci yar xar pour dimbali sax les éleveurs dañuy dem bay jëlee ay aliments ñëw di ko jox gars yi di dawal seen oto di ko indi ci kër yi di ko jox di nuyu Pape Ndiaye mi nga xam ne tey moom bu taxawee ni Cheikh Ndiaye mi nga xam ne moom tey bu taxawee sax man nañ ni tey taxawaaya bii rek du jëmmam kese mais dafiy taxawal sax Sidaat ndax ku ko xam xam xam ko ci Sidal Diop di xaritam yéen ñëpp yéen ñi fi teew ak mbokki éleveurs yu yëpp maa ngi leen nuyu seen tur sant tey ñu ñëw ci waxtaanu su comme ñun ñuy nekk éleveur Thiès fii ñoo fii di waxtaan ci sunu sunu su sunu sunu goox tey jii xar bi ñuy waxtaanee ñu ñëw fekk ko fii kër Habib Diop muy doomu Le Grand nekk un mâle boo xam ni mâle exceptionnel boo xam ni doomu magistrat la magistrat Cheikh Diop Cheikh Diop Murit Murit maam euh, Murit euh, Daouda soo xoolee descendant xar yooyu philosophie bi ñuy xool di ko gis tey ji dañu gis ben amélioration bo xamni tay tey un mal rentrant comme le grand daf ko def parce que dama ñew fekk ko keur abu mu juddu n'ek un moto exceptionnel bima ma ko xolé gis ko xamni peut-être amna lo xamni yalla ni may na ko tout ci connaissance ci élevage. un champion ci sama gis-gis ci sama xam-xam ci sama expérience man ma doy ko mu dem jënd le grand la ma ca waxon tamit yalla antuna ci may na ko parce que nee ko bala rendi di xar bu ñuy coow lay doon donc le le grand est un mal exceptionnel Mal boo euh, il donne des masses de ci production en génétique Limi muy per transmettre ci ay domam limi transmettre ci ay da fay feeñ parce que xar bo xam bi mu ñëw dafa yokk xar dafa yokk xar def macération def hauteur def lepp lo xam xar mi war na ci mom mu ñëw mu yok ko ci le grand nek na mal bo xamni c'est un phénomène xar la c'est un phénomène il a toutes les macérations

Pape Kader Ndiaye ay ñoom euh, Paa Yéeli Ndiaye da nga daan dem Paa yi wax la xar nan la war a mel ay Paa Saada si ñooñu ñëpp nekk nañ Paa yoo xam ni tey jóge nañ fi mais seen xam-xam boo ko sàqoo xar warul la jaaxal. dans le domaine de l' élevage éleveur lépp la war a mën a liggéey en esthétique en beauté femelle sax éleveur da ko war a mën a liggéeyal boppam. éleveur dafa war a mën a liggéeyal boppam mâle un mâle un mâle défini ku ñoo xam ne kii yow yaa liggéey. lol moy éleveur Abou Kane tey jii boo ñëwee tey yéen yéen yoon mais il a fait un un un un pas parce que dafa liguey ligueyat ba lepp xel mu tek ñepp war nañoo jema roy ci Abou kan jema liguey, li Abou kan liguey nga liguey ko sa mar éleveur deug war na am mâle éleveur deug war na liguey une femelle une génitrice bo xamni ni ku ko teg xam ni yow yaa ko c'est ton propre produit koku moy option éleveur mar mo dem bo fa fekkee xar bu sut xar fexel liguey xar bobu fexel liguey xar bobu nga am xar bobu tay ji bo gisee ay maturation le grand yi ay le grand yi so gisee tey jii ñoom ñu dem ba am euh, euh, le grand ñëw liggéey kër sidat peut-être sidat a fait un pas tay bo xolé plus de treize mal jaar nañ kër sidat yo xamné lu né am nga lo fa bàyyi cin dinañ cin di ng ko tek mais da nga ci def lu nekk bu togg bu jënd rek dé ko yaasa del jaxassé lu né booy ñambaat moy tax nga arrivé à ces top seen da ngay tek étape par étape élevage c'est euh, par escalier da ngay yéeg par benn day ba nek au sommet mag ñi nan nañ daan nañ wax ni yéeg ci kaw garab yo xamné mais tok ci kaw jafe na. toog ca kaw njëmbantal ga jafe nag moom am na élevage foo xam ne Cees waay toll nañ ci def nañ pas boo xam ne pas bu rëy ci élevage te tey jii ñu bëri reconnaître nañ ko connaissance élevage tamit dafa am gëstu ci élevage dafa am laaj ci élevage dafa xam nit ki soxorante jaru fi loolu laaj nit ci élevage xam na yow mii di ma kii sax soo ma woon guddi ne ma xar mi kan mooy bàyyam ma lii la la juróom-ñeenti maamam juróom-ñeenti bàyyam tegal la ko fële mais élevage moom combinaison la combinaison ça veut dire ngay xam gène bii ak gène bii ñooy ànd 2 plus 2 égale 4 communaux confiance Bob, il faut nga xam nan nga koy travailler xar boko xolé war nga mën travailler xar bi xar boko ko war nga xam ni travailler xar bu reuy war nga xam ni travailler esthétique war nga xam ni travailler yax war nga xam ni travailler corne corne sax dañ koy travailler poil poil poil ci xar sax amna qualité. bu ñu émission ta abi nek nit ko xamni yoy dafa dafa ak ñom te lii dafa nekk loo xam ne teraanga la parce que tey dafa invité éleveurs yëpp tey ñu tey ci kër gi pour ñu mën fi daje toog def ay xéewal waxtaan pour créer waat la paix ci suñu biir jàmm dox mais mënuñoo wax ba yeggal de passage te nuy wundu champion bu mel ni Oudé Diagne parce que moom tamit yàlla def na def na fi ay teloore mënuñu ñàkk ba ñu nuyu ku mel ni Papi Dieye nga xam ne ñooñu tey bu ñu joxe tey suñu cër ñun éleveurs yi Thiès yi ñu bokk nañ ci parce que ñoo jël seen i jël seeni i teranga dem dugg ci àll bi dem Dakar dem jënd ay sujet tey di ci liggéey liggéey boo xam ne tey vraiment nangam rawaan ñing ak euh, presque ku lim da ngay juum même Papa Ndaw moom tamit jàmbaar la parce que bi mu ñëwee moom tamit vraiment dikk ci ñëw Thiès bi mu ñëwee dafa yëkkati xaalisam dem dakaar rooti fa ni la waa Dakar am ñun war nañ koo mën a am Sidaat nag dañ koy defal mention spéciale parce que moom vainqueur la ndax moom lu mu liggéey ba pare ci rek bu señoon day des ci Thiès ndax le grand mii tey dem tey Dakar dellu ci abu kan fa ko jële woon tey bu sañoon mu desoon Thiès di fi ko fi liggéey mais xëy na yoolu la yàlla dogal Papis ñaa tamit ñoo ngi koy di doomu Cheikh ñaa coursier ñoo ngi koy gërëm di ko sant parce que tamit moom tamit sunu nit la te vraiment moom moo yore magistrat affaire bi daal yaatu na man nag damay faral saaw ma waxee ba yeggal nag ñun éleveurs yu ndaw yi nga xam ne nag sunu doole bariwul ñun nag ñoom Assane Mbaye wala nangam dama naan gars yi nañuy palanteer yi parce que système càppalu boobu man maa ko wax parce que dara bu baaxee yàlla moo njëkk yaatal moo njëkk a wax ma ne nasru minallahi wa fadun xaribun kon ñun éleveur ci biir war na ni mën a yaatal ñi amul do ñi am doole dimbali ñi am doole boo amee femelle bu baax te amoo mâle bu baax mun la mayee càppalu yàlla mën naa def nga génne ci lu baax lu baax loo ci génne nag koo la ko mayoon sax bu ko neexee bu ñëwaatee bu génnee njëg nga joxaat ko ko mu dugalaat ci géttam wasalaam mooy Habib Diop bii bon jeune la comme ñun jeune la boo xam ne tamit li muy def bëgg na ko bëgg na ko te yaakaar na ci arrivé nit nag am na loo xam ne li ma la waxoon ret buy doylu sa bopp yow rek xam-xam moom boo koy sàkku da ngay wut fu ne bàyyi ma sigga daan na saak bi boo ko tegee nii loo ci def rek loo ci def ret takkal tiyee bu ëllëgee xam-xam bi da lay da da lay am fu la jariñ kii nag sama waay la sama lépp la sama genn wàll la ba mu nee dafay jënd xar ma woo ma ne ma ah xar mi loo ci xam bi ma waxee xar mi dama koo tegal capacité génétique gu xar bi xar nit boo koy jënd boo koy jënd loo xar bu la waxee xar bi yow su tu es un technicien bu la waxee ret analyser

rakk muy Malick jëndoon ko jox jëlal ko ndijaayam njaareem après la ñu jug fii abi dem jëndiwaat ko prix bu rëy ci xale la mais deux ans lay doog am mu jënd ko 5 millions mu indi ko looloo waral suñu daje tey te li waral suñu daje nag daje la ndax xar moo xam da nga ko jënd di boo daaw ba ren ñoom ñi ngi jënd ay xar ñu jëndee xar jënd maal il fallait que ñu dajale woo ay am di jàmmam woo ko mel ni yow nga ñëw filme ñu ñu wax ko Sénégal parce que dañoo bëgg ba ëllëgee ñu xam ni yor nañu ko moo tax ñu daje ñun ñëpp nii. ñun ñëpp fi la ñuy yendu fi la ñuy añe fi la ñuy naan njarum soow maal bi man maa ko man sidaat bi mu bi mu ko jaayee waa ji tudde woon na ko tur waaye ñun bi ñu ko dellu siwaatee Habib ak borom ñoom ànd xam nga presque Habib mooy maal bi moom wax man maa ko tudde sedd na xol du dëgg ndax ñun ñi ko séq ñëpp suñu xol bu sedd woon duñu fi yendu tey du dëgg suñu xol bu sedd woon duñu fi yendu tey man maa ko tuddee sedd na xol waxe sidaat nag génn naa ko sànni sax ñuy waxi bopp la ñuy wax fi mu ne nii moom moo ko judlu loon jaay ko waaye fi ne nii noo ko moom xet na xol la tudd ñun ñi ngi invité nag éleveurs yi Sénégal yëpp ci maal bi ndax maal bi dañoo bëgg bu déwénee ñëpp dégg ko fay toll gis ko waaw. gis sama gars kon wax nañu am solo ci sedd na xol kon na ñëw ci Habib Diop mu wax ñu tuuti ci euh, lan lan lay xaati maal bi ñu dellusiwaat. salaamaaleykum mbokku jullit yi maa ngi sant si leen gërëm parce que euh, mbir mi moom lii lépp. xaal moo ko waral ba ba maa sant kenn damay sant sama yaay parce que mi ngi si biir te dafa xaw a tawat lii moom euh, lancement la parce que sama yaay daan na toog ba mu yàgg mu am lu ma wax ni ma li ngay sonni boo xëyee nii subaa ngoon guddee bëccëg li ngay daj ci xar yi xam naa ni bis dina ñëw yàlla dina la ko fay parce que am naa loo xam ne liggéey naa ko sa kër baay bii kon bu ma yàlla defee ñuy man ba mu juddoo changé mooy li ma waxoon ci télé bi depuis ba ma nekkee xale ba léegi ci xar laa nekk aw ma benn métier ci xar laay yëngu te ñëpp ñu ràññee xar ku ma ràññee rek ci xar nga ma nga ma ràññee kon bu ñu yàlla dogalee ñu dem a dem a dem a dem ba tey jii li li am nii xar la moo ko waral te lu ko waral mooy doomu la grand bi nga xam ni mooy taawu la grand ñu jënd ko tey ban toogee clinique de Diallo wax dëgg yàlla. Euh, fekk ñu juste ni wax ci affaire lu doomu la man dem na ke sidat fekk naa fa ben mbote bu juddu mani sidat parce que foal ren bi ku ko xool foire kees bi ren ku ko xool xam ni mbir mi mom nga soxol nga ñaka soxol parce que man ma ngay doomu avenir ma ngay yeen saw xay bu ne parce que yu bëree bëri nek na sama bi geet bo ñew foal ren bi ci bi kess xamni la grand mom manam cipp ko xamni sa bëgg nga sa élevage xawa yok il faut nga laal tuuti deretam ki nga xam ni nag lii li ko waral lépp lépp ti man kepp kii amaat la sama xarit la yàlla moo ni boole moom mi ngi États-Unis man fii laa nekk kees moom mu nekk ba États-Unis waaye yàlla ba muy tànn tey jii fu ñu xamante man ak moom tànnul kenn dafa yàlla moo ni boole ma diggante man ak moom mu ni ma abi ba mu naam mu ni ma man ay xal laa bëgg te ki ma boole yow mi nga xam ni mooy Bada dañ ko boo xamantee Habib naa la jox numéro nga woo ko kees Sénégal nga woo ko kees la dëkk papaam ay fas kus la amoon boo leen dëggante yéen ñaan dina la wutal ay xar yu baax yàlla def moom ñu toog deux jour trois jours mu woo ma téléphone ba ma woowee téléphone ni ma Bada Fall moo ma boolee yow man dama bëgg xar bëggul man ak yow ñu liggéey man ak yow ñu liggéey te bu ñu àndee liggéey too ko réccu ba mu ñëwee man nag boobu jëndal naa ko ay xar man jaay naa ko ay xar ba pare jëndal ko ay xar moom ba mu yàlla defee jàmm pendant 15 jours mu jóge États-Unis ñëw ba mu ñëwee mu jël xar yóbbu ba mu demee mu jël xar yu bëri maye ko parce que dafa dem ay mbokkam ni ko xar yi da ma si may kii may ma kii may ma mu jël xar yëpp mayee ko ba mu delluwaatee nag mu ni ma Habib nag maa ngi seetaan net bi maa ngi seetaan affaire yi man daal gaynde man dama bugg mu duggee ci àll dama bëgg gaynde rey ma moo gën ay pitax ay si ndax ay jinax ma rey ca àll bi loolu doo ci am ndam waaye bu la gaynde reyee boo ñëwee dëkk bi ñëpp dañuy xam ni gaynde war na laa rey man ko loolu loolu mënu laaj loolu mooy lan mënu ma xar mu seer boo gis muy jaay te nga xam ni wóor nañ la doy na la bëgg nga ko wax ma ko man ko ah mënu waaw fa laa commencé nag ab man ak moom bañ jógee ca foire ba nag laa commencé man ak moom nii attaqué ay 2 millions fii nii waxee man man maa xew moo tax kees gépp ni ma Habib kenn dëggatu sama tur maa xew rek parce que comme boo jéemoon la maa xew xay yi fii jar million man donc maa koy jënd instant yi nii waaw ku ko ci weddi naa la song sa kër nga woo ma téléphone 77 506 50 63 mu la fekkee sa kër lépp laay raxas waaw waaw moo tax nag xaadim jën nag ñëpp ñuy toog fii ñëpp Sénégal gépp xam na ni instant yi boo déggee nag néew ma maa fi gën a xaar waaye nag maa yow taawu la grand maa yow doomu avenir nag waaw maa ngi doomu avenir maa ngi taawu la grand néew man a maa fi man boo jéem a maanaam da maa maa xew maanaam ci waxin la waxin bi mooy maanaam cëpp koo xam ni bu ma duggee sa kër la nga la nga gën a bëgg tey ma duggoon kër xaadim mii parce que xaadim mii euh, juddlu na benn bëkki dem benn mote ñaa ko maa xewul yaa xew man ko lu tax mu da nga koy nangu mun waaw man ko mote mi fay naa la temps dafa tiit ba gëlëm ba jaawale ataaya ji waaw parce que man ki ma yor ku ki ma ngembu dañu ma neer yaa xew ku la gën xar la daa jaayu xaram dani ma amaat moo ne ma ku la gën xar ci Sénégal daa fekk jaayoo sa xar moo tax ma ni nag man maa xew ay millions nag ku koy génne waaw ay millions démb bëkki démb cinq million la ma konteel cinq million ne ma aywa mu ma nag may jënd ay xar ay ay femelle ay deux millions maa ngi fay ay femelle million trois millions quatre millions gars yi di bañ naa leen nag man sam nag euh, moom moo nekk nii njaw ma kodd fas musta jël ndàdd ci bi kus sam papa mo nga nek ne musta jël fasam musta jël ndàdd mom lañ tudd kus bi mom la waxon ci télévision man leen moom lañ tudd hippodrome bi moko tracé tay gi ba yalla def buñ ko koy tuddé fekk na mu gañu waye tay gi mom fas bu musta jël ndàdd ci bi kus bi kër gi mom do fi dugat tali bi mom to ko jéggi day gestu rek yem ci benn géwélam rek mën la jël ma may la man nak non la bëgg melti mel moo tax nag ma tey ma invité gars yi mënu ma moo naa invité waa R100 invité ñi waa jàmm gën gépp woon dama xam nga affaire bi da nga ko def simple rek waaye bu ëllëgatee booy ñëwaat fii damay lay sax nag ndax maa xew sa waay mi xam na ne maa xew ñu dina mépp moom gars yi moom ñu ñëpp xam na ne maa xew waaw suñu boobu moom dogal na loolu moom waaw te xale yi nii maa xew waaw waaw waaw daan naa waaw boo jëlee ma laaj loolu fii nii avant sedd na xool ñëw daan naa yoo ay maal waaye avant sedd na xool dafay fekk benn maal boo xam doomu avenir la euh, kii hmm, kobi kobi moom amaat moo ko jënd moo ma ko jëndal ni ma loo si bëgg def ko ci jënd ko nag ay xaaj bu bari am na 10 mois instant yi waaw si ni nga gis noonu 10 mois moo tëb xale yooyu yëpp seet na xoon na un mois ko manqué 2 ans un mois moo ko manqué 2 ans xalaatagu ma ko dama waaw xam nga bu ma xewee damay liggéey waaw ko bi instant yi nii yoon naa lu tolloo gis nga famille yi yoon na toll ci 15 16 ko bi daa ñëw rek yor fitalam waaw te ñoom ñoom ñëpp ci benn un mois mu ñëw doole leen ñëpp ma sant ko gërëm ko waaw ko bi moom dama ko sant gërëm ko waaw waaw. waaw bu kees. waaw li may tëjee mooy sama xol sedd na sama xol sedd na bu baax a baax parce que nga woote ay nit ñu am na ñoo xam ne soo ba léegi ñu ngi may woo wala xamoon naa ni peut-être euh, xam naa ni man suñu fii ci kër gu mag la parce que fii euh, ku xam Sénégal laa ku ni njaw ma kodd xam na ko parce que borom fasiku si borom gañaay Abdoulaye Nass Samb moo ko tuddee woon borom gañaay yi parce que li mu raw kenn raw ko moom moo nekk moo nekk nii moo nekk nii xam nga sama yaay moo nekk nii xam nga waaye man maa ngi sant amaat nag ma demee ba nangoo toog ci télé bi ci wax lu ma neex maanaam amaata ko waral xew maa xew gars yi sont fii dañ may jëy jël seen téléphone sax ni bindoon Habib Diop déedéet Habib moo xew Assane may mi xam na maa xew 63 sama numéro téléphone 77 la 506 50 63 waaw maa ngi sant sama yaay na bu baax a baax a baax parce que sama yaay euh, daf ma jàppale Assane mi xam na dara parce que boobu ba muy metti man ak Assane mii la ak sama yaay boo gisee ma tudd ci Assane boobu moom noo fii ci jàmm gën moom mu doon éleveur ma mu mag ñu fuuf ñu nekk ci gën nekk xale moom waaw may sant nag euh, sama yaay bu baax parce que sama yaay daan toog yàgg mu jooy bëkki dem bu may yéega soo ndox yi fii daf maa woo bu mu ñëw mu naa mun ma soxna si nee na bu guddee da ngay nelaw rek da ngaa mën ko yaay moom naa mën ko mën ko ndox soo ndox soo ndox mi moom waaw lépp amaat a ko waan nag amaat moom wax oh, dëgg yàlla lu mënut amaat daal sant naa ko gërëm naa ko waaw sant naa ko xaadima ngi nii am sat jaxate Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye démb laa ko paas waaye nee na ma Cheikh Ndiaye Habib moo may daaneel parce que Cheikh Ndiaye tamit daa daa mën daa xam xar yi Mbaye ngi nii xam bon kii sëñ ngi nii ah. laay laay laay ci sama xarit la laay moom tamit sama rakk la xam nga sëñ Mbacke mi tamit samay rakk la woo dañ bëgg seen bopp waaw. Mhm. sax su ne ñëwee Thiès grâce à du du du ay du mu toog a tax mais si daat laa dégg mu ni moo gis la grand ca Ndakaar wax ko te royukaay la ci cees ndax xar yu yàgg na éleveur léegi nag demeetul noonu mais jamono uude moom waxoon ni ma daan tëj place am 11 dem par këram toog. Pape Massoum Mbodj nee na woon këram booy boobu sant Ndiaye loo fekk këram jël le doyen est là parce que le grand mi bu ñëwee Thiès moom la ba pare bu ñu fa jógee dañuy sant Aboukan président Adam moom xar yu baax ci senegal dugal na ci loxoom te moo jiite Franco moo jiite Adam ñun waa Thiès ci ginnaawam lañ topp jërëjëf. non non non sedd na xol moom suñu boobu xam am na loo xam ne ni sedd na xol boo gisee ma jën koo ñemee ban ma ko wanee ni ma dañ koy jaay man neen fekk waa ji ñu ma ko doon wax naa ko tudd muy Malick. dafa ñëw fekk ma ñuy waxtaan ci affaire le grand fekk ma ñëw ko Sidaat fay ko ci benn mboote 4 millions Sidaat na ma 15 millions jaayul ma jël sama téléphone woo Aboukan wax ak abukan Aboukan ma le grand tëb na ay femelle waaye bu nu amee doom daanaka woo téléphone jaay la ko diggante bi même pas 4 jours. ma jënd taaw la grand 5 millions xam nga jamono dëkk Macky Sall bi ku nangoo jënd xaar 5 millions man daal maa xew si réew mi waaw suñu moom dogal ko maa ngi sant sama yaay baax a baax incha allah bu saw yàlla ma bayna aydihim maa xalwahum wa laa yuhiituuna bi shay'in min ilmihi illaa bimaa shaa'a wa wasi'a kursiyuhu samaawaati wal arda wa laa yahuuduhu hifzuhumaa wa huwa al-'aliyyul 'aziim akramani bi qul huwallaahu ahad rabbii wa lam yakul lahu kufuwan ahad najaani Allaahu min karbi sammat naajiyan bihi kafaanii al-kafaani wa ja'alanii akraman bi khayri raad salaam as'aluka jannatan al-khaliidati khaalidatun khaalidatun mufiidatun yaa hayyu yaa qayyuum salli bi salaam alaa lazii jaa'a bi ahsani kalaam alaa lazii jaa'a bi ahsani kalaam salli wa sallim wa taqabbal zaaka Allaahumma 'alaa khayri zikruhu maa yabuuzu min maxluuf li naazimi al-quluub xarab yaa man kafa zikruhu nubaax والله يا رحمن يا رحيم يا خيو يا خيو يا مكرم يا نجاك عبدك القديم إذا صلح مسلما على المزاجر سبحان ربك ربي ستعمى يشفون وسلام على المسلين والحمد لله رب العالمين ردا ورحمة بارك برم دوبا sama gars yi gis ngeen ni waxtaan bi jeex na euh, émission waxtaan noonu la demee woon tey ñu ko amee woon fii ci si bergerie Ibra Déguenta Nord képp ku bëgg ci émission bi rek wala nga waxtaan ak ñun wala nga am ñu présenté rek mën nga woote ci 77 538 03 50 77 538 03 50 ñu ñëw dafa yow émission bi ñoo wax